ñoom na su yor wàcc na jël na Tapha Tine a suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu ñoom xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na mbokk internet Leewtoo TV di am contentement ci yéen bu baax a baax di leen nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam ñu ñuy topp ci réew mi ak bitim réew di am ñoom contentement bu baax ah damay jël nuyo bi teg ko jël ko Bamba moom papa ne ko joxal ma ko waa Leewtoo TV yëpp ah Mbaye Babacar sama fay daal di ñëw jukki leen di gën a fës Mbaye maa ngi leen nuyu. ajaratu Ndeye Mbacke Diop sonn naa ci fay bi fay naa la ba sonn chaque jour ma fay la. Mbaye nuyoo sunna la waaye fay farata la. kon fey naa la nuyu naa bu baax a baax suñu mbokk internet yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam ñoom tamit suñu ma fayee rek ñu ñuy seetaan ñu woyal kon nañu woyal ba tax na revue bi seen huile d'or moo leen koy may ak gàmbu complet boobu mu àndal au Kayar ndox bu ñuy aar mm-hmm. mercredi. 16 juin 2021 damay ne saraax ci journal suñu làmb fekk ku ma fekk nag naa ko dóor ba mu xool benn place te noonu nag séance de violence yi am ci face to face yi ñu ràññee ko te mu nekk lu ñaaw lu kenn rafet loolu CNG ne daal di ci jël ndogal Mbaye Babacar ram ci xam ne nag mooy force de l'ordre yi par force lay nekk face to face yëpp soo nee saraax ci biir journal bi fa nga may fekk ma toog ferenkulaay xanaa booy wulli man ngay wulli. yaa tax may wax. <laughs> Euh, face to face yi liñ ci xamal ki nga xamante ne bii euh, moom moo jiite règlement discipline bu CNG moom moo moom moo moom euh, daje woon ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy ay ay ay naataangoom gannaaw ba ñu génnee ca ndaje moomu nag la ñu tënk ca ndaje moom mooy face to face yi bëgg nañ di ko amal. ci ci journée bi au lieu ñu koy amal guddi mais léegi bëgg nañ ñu di ko amal ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, journée bi wante tamit lañ ca gën a tënk mooy que bëgg nañ face to face buy amati incha allah ay takk fekkee ko loolu nag proposition la ba nga xamante ne bii règlement discipline bu CNG proposé nañ ko ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo ŋànk làmb ci loolu dina nekk lu gën ci ñëpp nañ xool nu mu gën a rafetee rek daal koy def mu gën a yénji ndax face to face pour foo la ak ree mais wutuñ ci violence et dafa bokk ci li nga xamante ne bi nag day neexal làmb ndax day jaay événement mooy charme bi sax parce que face to face dina la ñamali la mhm. avant cin cin bu naree neex bu baxee dafay xeeñ noonu lay demee ca noonu nag suñu làmb door lañ jëm ña ko jël nag mooy écurie Kaay baax kan la leen koy jox Mbaye Babacar le 7 août incha incha allah ku ne xam ne ne nag euh, mbas mi dafay jaaroon gàllankoor manifestation yu bari loolu moom moo tax suñu làmb door bi mujjeewul am at bii ñu génn ren nag ñu fas yéene koo amal incha allah bu ci yàlla àndee jox ko écrit boobu nga xamante ne bii seen ay performance ci làmb ji kenn du ko laam-laamee muy écrit kaay baax. fañ dem nag mooy mbuur géej benn dëkk benn dëkk ñaari gaal Thiès kaar waaye Mbour lañ jëm mhm. te Bombardier le B52 de Mbour la muy xëy di xam ne ne ci journal bi ne combat mbay dox ci diggante mag le Lion de Guédiawaye le 31 juillet mu ci à fond Mbaye dina ci dem ba jeex te jël na ko au sérieux moom staffam nee na lépp la nga xamante ne bii war na koo def ci boobu boobule combat rek du ci bàyyi virgule lépp lay def wante loo kàddu yooyu mi ngi ko yëkkatee fële ca Joal ba mu demee ci gala bi nga xamante ne bii Yaxya Diop moom moo ko organisé woon laaj nañ ko nee na MMA am naa ci ñeenti contrat waaye nee na du ci waxagum dara mu war a am mois de out ak mois de septembre incha allah. te noonu nag suñu papa Doubless ginnaaw ba yaramam jagadee ba suñu làmb daal di koy xëy fësal ko ah. ñu xëyee nag ki nga xam te ni mooy doom yi Balla Gaye numéro ak Sa Thiès ñu seen cheveu papa maanaam lépp lu war ci moom rek ñu ngi koy def jël nañ ko en charge Mbaye Babacar eh, seen yaay moo yëkkati yooyu le kàddu ci suñu làmb suñu làmb eh, dafa woo maire bi téléphone waxtaan ak moom ci tawat bi nga xamante ne bii moom moo moom moo dal suñu papa Doubless mais eh, maire bi li mu wax mooy Balla Gaye 2 bi feebar bi gënee metti jëloon na papaam andi ko fi mu dëkk di maris doon ko toppatoo ni mu ko war a toppatooyee euh, mais ku ne xam ne ne Balla Gaye nag mu ngi ci préparation combat wante loolu teewul Euh, li mu nekk France nii heure bu xëyee dina woo papaam ñaari yoon Sa Thiès kazalika naka noonu tamit nee na lépp lu mu war a def ci paa bi tamit mi ngi ko ci def te it yaakaar na ne incha allah fan yu néew paa bi dina jóg ñu koy ñaanal rek mu jóg ci jàmm. ci jàmm jàmm ak salaam ak mbooloom képp ku tëdd ah, ci lalu hôpital yi biir kër yi ca noonu nag moo Modou Fall la muy xam ne ci combat bay am ci diggante Franc Franc ak ki nga xam ne mooy Tyson 2 nee na Mbaye Babacar combat bu dangereux gis noonu. combat bu nar a metti combat bu ñëpp di xaar combat bu amateur yi bëgg. muy diggante Franc ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Tyson moo du Fall moom mooy ah mbër la woon ba pare nekk directeur technique bu jëf jëf soog a soog a nekk écrit bi noonu la tudd jëf soog a nekk moom li mu xam le nee na Franc mbër la ma nga xamante ne bii dafa competir ba pare dafa mën a bëre nee na exemple la joxe bu ñu organiser woon tey benn galaa ba nga xamante ne bi ñoom bombar Bombardier ñoo ci nekk ñoom Balla Gaye ak mbër yu mag yooyu moom mën na mën na wax ne Franc du jël ndaare ndax dafa mën li nga xam ne moom mooy bëre simple wante Tyson 2 nag neen dafa mën a bëre mën a xeex te Tyson 2 bu daanee Franc du ko bett nee na tey daal bu doon pronostiqué day jël 60 pour cent jox ko Tyson 2 40 pour cent yi mu jox ko franc. kon ça veut dire que Tyson 2 mooy favori. pour moom waaw Tyson 2 la def favori moom. arène nationale lañ jëm ak mercredi du CNG tey jii diggante Iba mécanicien ak Takkandeer Mbaye Babacar. mu nar a nekk treizième journée ba làmb ji ubbee ba léegi fukkeelu journée ak ñett ba làmb ji ubbee ak léegi CNG ku ne xam na ne avant saison bi ubbi dañoo yëgle woon ne àllarba bu jot. danañ tëgg li nga xamante ne bii moom mooy làmb ci loolu la dynamique boobu lan nekk nag incha allah tey jii ñu fas yéene amal combat ba nga xamante ne bii combat espoir la wante yeneen combat yu ndaw dana ci toftalu ñu koy wax ay combat préliminaire. beneen combat ba taxaw nag diggante Félix yi ak nga xam mooy Vieux Dacia Mbaye Babacar kan moo ko taxawal Fallou Ndiaye borom production la 28 août incha allah. boobu tamit nekk combat espoir fallu Ndiaye moom tamit nekk promoteur ci làmb ji wante bu léegi continuer. di taxawal ay combat gannaaw ba mu taxawalee ki nga xam ne mooy Ada Fass ak Tafa Mbër toftal na ci ki nga xamante ne bii moom mooy Filiklis ak ki nga ki nga xam ne moom la war a jàkkaar lool mu nar a nekk combat bu metti nar a nekk combat bu neex waaye ñoom ñaar euh, ku kii dafa jógee ci défaite kii jógee ci victoire te nee naa la mbër bu jógee ci défaite day naqaree bëreel mbër bu nekkee ci victoire tamit day am li nga xamante ne bii mooy confiance. ca noonu nag général Malika lañ jëm ginnaaw ba combat ba yàqoo diggante ak sa bala la lam ci xam ne nag mooy. ñu muy xaar ñaar rek la Tyson 2 ak Franc ku daan rek ngi lay xaar. général Malika nee na Tyson 2 Franc ku daan bëgg na wante tamit nee na soq ak ki nga xamante ne bii moom mooy jën euh, kayre tamit bëgg na nee na promoteurs yi ñu ngi koy seet si di seet si staffam ñu ngi waxtaan ak staffam mais boobu ba léegi dara sotteegut mi ngi dundee yaakaar wante nee na fàttewul ne mu ngi ci sous contrat ba nga xamante ne bii. Assane Ndiaye la ko seeqal te incha allah heure bu ko Assane Ndiaye joxee adversaire pare na pour bëreel bëreel ko bëreel moom loolu général Malick moo ko xam la ca hmm. noonu nag France bi ginnaaw bi mu waree bëri le 19 muy open press ba nga xamante ne bii ax lu làmb ñi ngi koy xaar ndax wax naa la ko sànq open press ak face to face dafa bokk ci liy jaay combat ba tax na promoteur yi duna ko sa duna ko duna ko bàyyee gannaaw tey mu fas yéene am foofu ca parcelle euh, terrain bi nga xamante ne bii mooy terrain unité 7 Euh, ñu mu fas yéene jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi wax naka la préparé combat bi ak lan lay andi jouru combat bi. mbay Babacar top cinq lañ jëm avec les meilleurs lutteurs de lutte simple ginnaaw loolu nag ka suñu lamb daal gën a ràññee mooy Doudou sànne Ibou Ndiaye óbbali Serigne Ndiaye 2. Franc Mbaye Babacar. ñu nekk ay mbër ya nga xamante ne bii wax ni nga ko waxee noonu la demee ñoom ñoo ëpp li ñu jël ci ay gala ki ci jiitu mooy Doudou Sané am na juróom-ñaari gala am ci li nga xamante ne bii moom mooy ay koppar 3 millions 660 mille francs wante ka ca topp moo mooy Ibou Ndiaye Obli am 6 gala am li nga xamante ne bii mooy 2 millions 25 mille francs. troisième bi moom mooy Serigne Ndiaye 2 euh, am li nga xamante ne bii moom mooy cinq gala am million millions quarante mille ka ca topp moom mooy le prince de ñaaw ñu naan ko Ngañ Seen nekk xale ba nga xamante ne bii xale bu mot a bàyyi xel la moom tamit am na million 3 cent 950 mille wante ki jël cinquième place moom mooy franc euh, am na li nga xamante ne bii moom mooy million millions cent mille franc. ku ci nekk ci ñoom ñooy ay champion nga ci sa géewul bopp ca noonu nag journal record lañ jëm combat royal à la date du 25 décembre une découverte pour Modou Lo et mu mel ne ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk jour boobu yaa ngi koy soo ko bëree may Babacar ñoom ñaar kenn mësu cee bëre le 25 décembre wante mën nañoo jàpp yëkk Yékini Balla Gaye ak Eumeu Sène Gris Bordeaux mësuñoo bëre exemple ñi ko mos a bëri moom mooy Lac de Tyson ak Bombardier mm-hmm. ñoom bëri na li nga xam ne moom mooy vingt cinq décembre mais loo ci mën di dégg ak lu mën di xew le 25 décembre bii ñu dëgmal ëmmas ki nga xamante ne bii mooy Modou ak Ama Baldé di nga gis combat bu neex te borom xam-xam yi ñu ngi commencé génnee li nga xamante ne moom mooy ni laa ba di war a te promoteur ba nee na boobu fet la koy def maanaam fukki at ci kanam fukki at ci ginnaaw lu mel noonu kenn du ko mës a gis ñu mën ci xaaraan ba léegi nag ñuy jeexalee mooy isaapu yi la Kayma de Thiaroy huit ans après ginnaaw ba mu bëreewulee ñëwaat na digganteem ak Aliou Seye numéro 2 xaar nag ndax day judduwaat wala di duggaat ci biir saako yi. rob mbalax la mujjee bëril ci làmb ji boobu ba léegi kenn gisu ko mu war a dellu si waat nag ak Aliou Seye numéro 2 nekk xale ba nga xam ne xale bu féroce xale bu tënk xale bu mën a bëri la wante incha allah Issa li mu bëgg mooy dellu si waat jëlaat place am ci làmb ji ndax tenor yu bari ci làmb ji bëri na ak ñoom daan nañ ku ci mel ni Balla Gaye 2 Tapha Tine Yékini Junior ak Balla Diouf ak Rombalax ñoom ñëpp daan na leen te ñooñu ku leen daan ku nekk am nga place ci làmb ko tax na place boobu mu am ci làmb moom la bëgg a téyewaat bu baax. moom la bëgg a téyewaat li ci kanam du rawi bu gët Mbaye Babacar damay kontaan ci yow loolu moo nekkoon li gën a fës xibaaru làmb looy tàggatoo xanaa jaajëfal ñëpp dig leen daje incha allah suba ak jàmm wante sama jigéen bi jóoba jóoba temps yi dangay lekk te ba fenn ñaari ndékki lay ndékki ñetti añ lay añ bu añee ba pare dina lekk ñetti màng macha allah. màngu boobu bi àjj naa ko. <laughs> gis nga may a jikkoom moo ñaaw amul doom bàjj dama koy jàppale sarax ko ngir yàlla noonu laay def rek kontaan bu baax loolu moo nekkoon li gën a fas xibaaru làmb damay tàggatoo a ah jël tàggatoo bi bamba comme toujours ah dénkaat naa la ko tàggul ma waa Leewtoo TV yëpp di kontaan ci yéen bu baax a baax waaye laa tàlloon nag damay dem Cité fajaa fekk fa mam bii nga ndaw aljana ah séeri Lamine Gueye ah Gueye Ndiora borom poor xale loxo ci poche ah papa El Hadj leen ñaanal jàmm ju baree bari damay bëgg ci yéen noonu laay def tàggatoo ak jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV. léegi da ngaa commencé di dóor. sama góor la. kooku mooy loxo ci poche. Bilal ba ëllëg incha allah. foofu toj Taphatine attention. ñaar Sathies xeex na ñoom ñaar Sathies Boy Niang jàpp na ko mot na ko ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na Taphatine dóor na Taphatine a ngi dóor ci suuf. attention Sathies ak Boy Niang ñoom xeex na ko.